jàpp ne da nga war a humilier opposant bi ñaata nit la ñu fi gis ñu humilier leen depuis 1960 defuñu dara lu dul wuute xalaat ak ki yor wala ñu ne ko ah ni nga yore baaxul de waaye keroog maa ngi koy fàttali te loolu mooy sama poñ bi nga xamante ni moom moo ci topp il faut que maa ngi ñaan ñu wax sénégalais yépp di ci jiital sunu kilifa diine yi di ñaan sénégalais fu mu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. di ñaan ñi nga xamante ni ñoo ànd tey ji ak président Macky Sall ngalla nañu ko dimbali mu sàmmonte ak kàddoom ca la mu bind ca téeréem boobu tudd conviction républicaine dëppoo lool ak constitution bi nga xamante ni moom moo ko bindulu mooy mu renoncer à un troisième mandat à une troisième candidature Macky Sall yow ak ñi nga àndal maa ngi ñaan kilifa dina yëpp ñu jàpp ci dimbali ko mu Sénégal dafa amoon lu jiitu Macky Sall di am Sénégal day wéy di am bu fi Macky Sall nekkatul kon troisième candidature bi maa ngi ñaan sénégalais yi ñu mobiliser wu dëgtal ko ci noppam sensibiliser toutes les forces vives ngir président Macky Sall tel maa koy ñaan tey jii ci 31 décembre bi mu renoncer définitivement à une troisième candidature parce que loolu dina dalal xel yi loolu dina dalal xol te loolu dina ko permettre mu jëlaat turu Sénégal deru Sénégal gën a tee rafet gën a tee kawe mu am une sortie honorable Sénégal continuer di wëy moom mu continuer di dund dundam parce que Sénégal dafay continuer ñun ñi ñëpp dinañ fi jóge Sénégal di wëy di fi des kon j'invite le président Macky Sall à renoncer à une troisième candidature jublu ci li nga xamante ni moom mooy année bii nga xamante ni moom mooy 2023 engagé ci li nga xamante ni moom mooy réforme en intelligence avec le parlement les réformes majeures yi nga xamante ni dafay am solo pour l'avenir du pays nga xam Sénégal dafay nekk un pays gazier un pays pétrolier mu garantir la stabilité mu organiser élection yoo xamante ni du ci bokk bàyyi nit ñi jongante te ñi nga xamante ni te ñi nga xamante ni te nga xamante ni ñoom ñooy wuti te ñi nga xamante ni ñoom ñooy wuti wala ñun ñi nga xamante ni ñun ñuy wuti. Mhm. ñu xam ne encore une fois Sénégal promesse de paix la et de stabilité sociale. Mhm. loolu bu ñu ko fàtte bu ñu ko fàtte bu ñu kenn gëmloo ne jël nguur dafay ajowoo ay bakkan tëdd. ma ci rendre hommage le président Abdoulaye Wade. Mhm. dafa waxoon ne du ma marché mukk ci ay cadavre pour accéder au palais. te am na ay jamono jekk woon na ko de. am na ay jamono mënoon na ko de waaye dana du ma dox mukk ci ay cadavre pour dugg palais donc intelligence boobu loolu kiy jiite daf ko war a am kiy jiite xolam daj dafa xenn dafa war a jeex ci xolam képp ku bëgg nguur tamit sa xol war ta fees dell ak xen képp kuy jiite it sa xol warul fees dell ak xen bañante bi am léegi ci espace politique ëpp na fexeelante bi ëpp na rayante bi ëpp na depuis 40 ans sunu sunu morom yi dee lan la leen jëriñ. lan la jëriñ réew mi lan la jëriñ réew mi. lan la jëriñ réew mi loolu jàpp nañ ne c'est inadmissible et ça ne peut pas prospérer te mënatul woy donc di wax ne le mouvement les serviteurs dinañ ci taxaw taxaw bu mat sëkk. ngir politique duñu soppi waaye ñun ñoo koy soppi mooy soppi président Abdoulaye Wade bi mu waxoon en 1974 li nga xamante ni moom la Maulana Cheikh Ibrahima Niass waxoon mu ne fépp fu ma dem képp su ma noppee ci sama njaboot fu ñu dem dañuy soppi waate waaye kenn du leen soppi te amaat naa fierté keroog bi ma demee Médine